ahbaab yi waaye waaye nag góorgóorlu leen nag roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag xoolal luñ ko taggee kassul lihiya waxuñu sikkim bi gudd na de mais dafa yaatu sëq dugg ci biir sëq génn ci biti su ko defaree nga xam ne góor dëgg ngi nii waaw noonu la góor dund waaye góor yi tey koo ci seen sa yaram day daw sa yaram day daw góor goo xam ne bu la sa jabar tegee sa loxo la raay mu mel ni kanamu jigéen sikkim góor da koy yar yore ko mbokk yi ka sulliya sikkim bi dafa duuf dafa bari allahu akbar xool leen yonent yi ñépp amoon sikkim ñépp mbokk yi